léegi ginnaaw bi jógee ci réew mi nag foofu fu ñu jëm. waaw mooy ñi nga xam ne ñoo war a meñ ñi war a defar réew mi nan la ñu war a mel. ah ñi war a defar réew mi. waaw nu ñu war a mel. nan la ñu war a mel. bisimilah. wala boog liy defar réew fi muy jógee ñu war a mel. bisimilah. ma waxoon ne ku am suuf su nangoo nangu baax def ca gàncaxam da koy sàmm kay aar am ca yaakaar ju rëy nda xam ku am suuf su nangoo nangu baax def ca gàncaxam da koy sàmma kay aar am ca yaakaar ju rëy nda bu suuf nanguwul. waw koŋ mu fees ngaj ji wet gu ne ku fay suul ji xam yaakaaru faa seeru meññatam bu yàqoo yaxeet nit bay ca coonaam ba wat njariñ bu ñàkkee xarak bu mu ngu bu yedd aw nitam ci gaawaay ñorug meññat ci ne xam nga sakkanam la ñuy ràññi mbootum suuf ba xam baax ga ak bonam jigéen ay misaalum suuf te gàncax ga mooy njaboot ka bay di góor mooy tànn suuf sam di suul ji xam bu njëkkoon bu góor bëggaana a wut soxna way juram ya lay waxtaan balaa samp ak këram ñu ñaanal ko aw yiw dolli kom xel yebal ko kër nijaayam mu jaayu ngóoram mbaa doomi bàjjanam bu njëkkoon bu waaye ñàkkee ndegam nangu naa liggéey du dem ñaan ñu koy gàntal te bëggante xas ba am ku womal di joor angaari or xaalis ak wurus te ñaaw jikko bay jaay jomba ñaw fu mu demaan du am bu njëkkoon ko mokkal alxuraan bind kaamilam bu songaan gorom fañ koy xekkawli ku moog ñoñam wuuteeg fii bi siñ daaray labat seen ndaw ñu naa ko toogal nde man ngaa am ko gën kii mu far ko gëm bu njëkkoon alal ak judd dub nattukaay xanaa ku jikkoom rafet rey fit mu jàmbaare làqu jom la ñuy tànni dub am am du xeet wii du xeet wale ku baax jikko diine mat la yónnente goon njaxam ku am ku ne day jeex mbaa mu jeexal fi jaaxle ñëw bu dee xeet la xam ngeen nit xëyul tànn askanam ne am am bu ànd ak mbewte ñàkkoon deseeg sa ngor ña xam ne ñu lii gën lee ngoray ko ma gétti am xebet nit ngiru askan nawee nit ci am amam yile yaari yëf jullit bu koy def du jëm kanam suñuy aada daa ànd ak cosaan suux ci réew mile ba tax yee ñu daa def démb tey kenn gisul mbiram ne sax njabootuk tey njabootuk kanaara la da ngay topp seen gannaaw ñu jiitu la dox di dem ku bëgg ku ne bëgg am doom waaye kan la fi xel ni dal yi xew léegi mu ub boppi ñuy nekk fii ña dem yi xew léegi xew wil yee waral lambu gii nga gis ci suñu doom yi xëy xëy bañ kilifteef acam acam jigéen ruus na tontoon teeka xëccoo a koy yilif ci kii laa bëggoon a kee ne ko der ba day tilim jigéen daaxulan tànnal fi boppam borom këram dadaa toog mu jot baayam ba tànnal ko mbaa ndeyam jigéen daa xam góor ba koy fekk ci këram a koy sàkku biir néegam ba koy feeñu ci cëram jigéen daa xulan baagante réewam tugal ma ngir nawanteer cër yi biiram di def yooyu ku wax ko xam jigéen daa xulan bëggeeg ba di taamu mooy waral nga gis fii ku tàmm dàq bay dàq jëkkëram dañoo wan gannaaw lislaam ji roy dàq noonu yile dañoo jóge fañ nekkoon te duñ yegg feenu jëm mu am yenn way jur yooyu ku ñëw ñaan si duñ la may dañuy jaay ku dem fay njëg gu néew doo fa am dërëm amaat benn bennaar yooyu ku baax yiw ba mel ni man du koy gis ci ab ëttam bu far tàngalub xolam sa yéeful yu góor yi xaaj bi seen ñàkk takk gii lañuy ñuy teg ca seeni ndodd moo diis yu faf gëlëm at yi at nga koy liggéey mu xëy yem ci benn bis doxul gàtt xel ka nga mën naa ne fii la yem wutum koom ci say aj can ga aj may gu njëkk tax sa doom lamb mbaa barkeem ba néew mën na ñàkk am ku ne xam fi réew mi toll tey ciy jafeñ jafeñ ñu koy bàyyi xel jaarale mbir yi ganeen anam na way jur yi wàññil can yi ñuy wut si barke sax ci say jigéen ñi wàññi seen dàq bii nu dem lu can gën a néew yónneen ba ne barke ëpp fa ku fas sa sëyam barkeel dafay néewalug canam moyul sëkkatal nit naa ko takkal joxoo ko tus xamoo toll waayam ëpp naa def na xel xalam lu tee laata ngay dëkkal ci noppam fasal fasal nga am lenn cës laa yoo bi daan jox loxoom maram xarit soxna kat nekkul lu ñuy mat lu ñuy mën a te muy dëgg saayaay moo ko wax moo bari xikam ñemeeg bëgg mooy ngàndaayu koy dem xareb labat ku aawloo ko baax tey bokk bàyyi nee na jël nga ndam alal diine taar askan yi lay yent rek a tax ñu fiy denc yow tànnal ci yi benn xool ba xam yónneen nee na tànnal naa la kee gën ci ñeenti nii borom diine moo gën fii te gën fopp feenu jëm ku am taar bu ànd ak diine askan wa baax kawe mu woom yaatu mu woom am alal fekkoon ni am naa ko day gërëm joxe can joxeeg ay woddu dëkkoo joxe njëlit bu fekkee ne am naa kii danaa roy ci kor maram na buur def ci kër yi jàmm ak barke mucc raw njariñ wërsëg ak wér gudd fan naa nërëm nërëm ku am yal na am ndimbal ku am til na am ku yiw su bëggee ku ndol leen ñor na am gën ji ndol leenam ku bëggu njaboot buur yàlla na koy jox lu seddu xol ba may bintu ahmad ndaw talaat ndey mu fay borom jub ak yow yaatum xel la ñaan borom aras ñu raw ñiig ñëwoon amin rafet xol rafet xalim ñu raw ñiig ñëwoon amin rafet xol rafet xalim allahuma salli wa sallim wa barik alayhi macha allah eh, taalif bi moo tudd nan wala ci jigéen nga ko def waaw taalif bi na ngaa xool nañ ko tuddee rek ah man jox naa ko gars yi nañu xool ñoom nañ ko tuddee ah daal bi <laughs> ñoom may naa leen <laughs> macha allah waaw lu jëm ci wàllum sëy la laa ko tuddee woon le sëy wàllum sëy léegi bala ñoo ñëw ci détail bi ci biir dama cee dégg mm, nga wax ci maanaam mm-hmm. xeeb nit wala naw nit ci askanam mbaa ci alalam mm-hmm. waaye da nga gis ne loolu daa am ci bar bari ci réew mi daal. waaw maanaam naw nit wala xeeb ko. waaw ci askanam mbaa ci juddoom. waaw loo bëgg wax jàngale. waaw war naa fa bayit ni wuteeg fii bisiñ daara la ba seen ndaw ñu naa ko man ngaa am ko gën kii mu far ko gëm. Mm-hmm. man benn siñ daara boo xam ne xam naa ko sama xarit la dafa ma nettali ne ma dafa am jigéen gum doon bëgg bi ko bàyyam laajee baayam dane ko lu muy def ni ko day jàngal mu kooku amul métier. est-ce que ko amul métier. allahu akbar te day jàngale alquran. ah amul métier la ko ab jullit la. ah loolu xanaa bu bu bu bu wàccee ma defal numéro nga jéem <laughs> nga jéem faa yegg laaj ko ba xam. <laughs> mais loolu doy na waar de. waaw kooku amul métier. sama xarit la de waaye nii li ma waxee baat bi. xanaa kooku bàyyam jàngoon xayrukum man taallama alquraan waaw léegi nag léegi nag ci loolu. Euh, loolu maanaam dama laa jox misaal bi gën a gaaw rek. waa dégg naa ko waaye yeneen secteur yëpp yi nga xam ne ñuru na ci réew mi te mooy doxal réew mi nag. Mhm. maanaam secteur yi yi niru lu ko xeeb nii mooy secteur yi loxo réew mi boo xoolee secteur yi gën a niru niru ci gis-gis nii lu oyof mhm. damay bañ di tudd tur du ma wax dégg naa dégg naa baax waaw da ngay gis ni secteur secteur yooyu ñooy doxal réew d'accord waaye lépp souvent ña fay nekk mhm. dañ leen di xeeb mooy dem ba àgg ci buñ demee di ñaani soxna ñu leen di xeeb dëgg la nag soxna moom xaalis yooyu mën na koo yooyu nag waaye yow sax wallaay danga daara ñu ñu tax yor soxna wallaay ah. man imaam damaa jógee ci daara ji ñu takkal ma soxna ah, ah. daanaka dama faa jógee di jàng mécc nga xam ne kon jaroo ji fii gaa yi jaar na déet gaa yi kay fi gaa yi fu ñu jaar noonu ah fu ñu ci fi ñu jaar déet yow dama laa gis keroog nga ah maanaam labat gi daal nga wax fi ci ñaw ah, gi boobu maa kër baay maa ngi ñaw gi waaw maanaam daal dama faa jógee rek daanaka dugg ci yëf waaw maanaam ate ah, loolu maanaam li ci xaw a doy waar mm-hmm. seet am am gi dafa yéeme parce que ki ngay seet am am mm-hmm. daal di wax ni kat euh, Serigne Touré mii. Mhm. milliardaire la ni soxaay bu mii. macha allah loolu de euh, barkeem bariwul. moo la fa naa jéem a wéef comme ni nga waxee ne man milliardaire laa nii. Ah. comme misaal bi misaal bi ma jox noonu de moom sant naa la ci gërëm naa la ci yàlla ma la yàlla fayal. loolu sëñ Saliou Sagnane est-ce que waxal waa ji kii rek ah, ah loolu daal loolu faaw nga defal ma ci dara. Ah, tubaarkaal gis nga. tubaarkaal. oustaz daal neen saa yu nekk mu bëgg a dem dëkk si di millionnaire. ndax dégg na ndax bu nekk foo rek man six millionnaire la. bëgg mu mat 43 milliards dafa yàgg. bu ko wàññi yow tamit 52 ah, ah, ah, la di. ah 52. ah la di. kon mu mel ni mu dem ba. waaw ki nga xam ni daal dafa mm. néew doole damaa gis sa biir taalif ni kii néew doole dañ koy xeeb waaye ma mm. gisaat itam ci biir. Mm. nga wane ni maanaam bis dina ñëw nit yàq ci bés loo xam ne daanaka ne damay liggéeyoon ay at da koy jël ah. yamara ko ci benn bés waaw ah, maa ngi nuyu sama xarit sëriñ Xaadim Badiane yi bokk bokk ci waa ma leen di nuyu ñoom waa Taif ci kanam ci njiital sëriñ Cheikh Diop Kër Massar mhm. leen ñaanal jàmm ak tawfiq di nuyu tamit waa groupe bu ëttub alquran ñi mhm. def liggéey bu am solo ci alquranul karim di taxawu daara yi di ay ndaw ñoom it Xaadim Badiane ñaar ñëpp lañ bokk man man ak moom dañu faa sante Euh, léeg-léeg moom daanaka ci yooyu lay def mooy suñu mouvement bi ñu bëgg a taxawal fii tuddee ko mouvement ànd xeex yebbi. xeex ànd xeex yebbi. yebbi waaw waaw. yéen yéen a bëgg a xeex yebbi. waaw waaw mooy ba di nga xam ngeen du ngeen am na ñu adhéré si léegi góor ñaa a dee sëñ bi. ah man ne mouvement bi bëgg na maa bokk mais damay ragal góor ñi de xaay moo tax si xaay mbay <laughs> maa ngi koy nuyu ci eh, initiative boobu waxee naan mu am initiative <laughs> xaay mbay mu boobu. est-ce que dinaa ko wax Assane mu adhéré. waaw léegi association ànd xeex yéen. ànd xeex waaw. jeex na waaye loolu nag jàmm dinaa ko jox waaw moom nag dama koy sant di ko di ko nuyu waaye mu suñu xaari bayaat ndax eh, yooyu rek yi ni mu koy ni mu koy waxee noonu la koy jëfee. ndax man xaritam laa. alhamdulilah. Eh, dem naa ci ci itam fan yii jàll dem naa fa. Mhm. <laughs> benn topp laa am di ci. bi bien. <laughs> benn topp kenn topp soxna si. Ah, waaw soxna si kenn ko topp. waaw te baa soxna si yàggu fa. bi ñu xëyee noonu tamit daanaka comme man a fa nekk ñoo fa nekkoon daal naa ma si jël Kër Massar yaakaar naa su ma juumut. très bien naa ko wàññi du kii. très ah. kon léegi moom effet. léegi nag jigéen moom dafa nekk koo xam ne góor gu koy takk yaakaar naa ku mu war a àndal la vie euh, ni ñu koy waxee. waaw kooku nag bu fekkee dañoo wax ne am tey booy jënd aw fas waa ji ñëw nga koy seeralal dik ko seeralal dik ko seeralal ba far jox la la muy maanaam la nga waroon a jëndi ngooñ fas yi bu ñëwee léegi lan ngay xool lan nga koy xontee wax na dëgg waaw di ko seeralal di ko seeralal ba waaw ah, ba jëlaale la mu waroon a jëndee ngooñ mi ngi ko war a ah, xontee lu muy xontee fas yi léegi fas yi bu ñëwee bu fas yi wax nga dëgg de ràgg moo tax léegi sëy boo dégg ñaari fan ñett nga dégg ñaa tas na waaw donte nag am na ay góor yi yaay may ma ñeex ak góor yi góor góoru lekkat doma waaw ñoo xam dañoo dañoo yabaate nga xam ne ñoom dañu dul yor jigéen mm-hmm. mm-hmm. a rëy ci sëy moom yooyu ko indi yàq gu yàq gu yàq gu metti gi ndax yàq yàlla da ko yàlla da koo dàq ci alxuraan inna allaha laa yuhibbul la wax mm-hmm. yonente bi da ngaa da koo bañ sax ba naan la euh, fiq ñoom sax da naan la booy jàpp ndox mi bu mu bëri ci maanaam bëri ñàkk gi ñu ñàkk bëri say cër nga xam ne doo mel ne kuy sangu mhm. danaan loolu ngëneel la nga xam ne lu baax daal la maanaam foofu dama cee diggante lislaam ba ci jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla ngay jàpp sax mi ngi lay économiser loolu ndox bañ nga pour nga bañ nga bañ yàq. allahu akbar léegi nag bu dee koo xam ne war naa ñëw nga war koo yor. Mhm. loolu nag dafa am loo xam ne baaxul. macha allah mooy jigéen ñëw amul ci kër gi ñaari fan ñett rek. daf mhm. fi commencé tubarkaat la ñu naan. Ah, loo bërëxal foofu. nii noonu rek comme noonu ndax. am na loo wax ci suuf de. waaw comme di di di di di ziare di ziare sama yaay yëpp nag. sëñ Fallou sëñ Fallou de sama garu tey gii daal ay bërëxal la yor ci suufam ah. <laughs> allah yal na yàlla barkeel. am na solo